léegi beneen mbër boo xam ne mooy Lac de Guiers 2 fan yii dañoo dégg manageru Ama Baldé ne digganteem ak muy Lac de Guiers 2 Ama combat la yow nga wax ne loolu mënatul mënul ne du ñu bëree ñoom ñaar entre sa wax jooju ak waxi Abdou Bakhoum jooju mu mel ni ñaari version la yu bokkul la. xam moom séeréer dafa sàmmi woon réer si àll bi nage nage mi naan teguñu baaxum waaw ñaar yooyu sam papa moo toog ne ñaar du ñu bëre du bëre ñoom du bëre Balla Gaye du bëre Sa Thiès léegi lu ñu si mën sam dina dee léegi. léegi li ma waxoon léegi ma dindi ko def loolu du ma ko def ilaa ñu bëri xanaa ma dee de wala mbër bañ ma dëgg waaye tànk moom muy li muy wax muy dëgg du am ilaa yawmi diin. Amadou mos ak Lac de Guiers parce que ndigalu waajur wa ngay sàmm ba tey. waaw waajur li mu wax moom nga wéy waaw. kon daal loolu moom kuy xaar Ama ak Lac de Guiers 2 bu yeboo nga bañ nga xaddi. ku si am sa xaalis yóbbu nga taal ko jaaroog sa daay baa ngi ñëw nga jaaroo ko jënd koy këriñ jaaroo ko de waaw ku mbaaw